gan gi màgget Ndong secretaire général adjoint bu SYNPICS ñu ngi lay nuyu. am nañu mbégte mhm. jërëjëf am nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey ngir waxtaanee marche euh, wala mbiram Pape Alé Niang euh, marche bi ngeen di amal tey gën cee fës euh, bu weesoo loolu nag ndax mun nga dellusiwaat ci li ngeen jot def ba ñu tegee loxo suñu naataango boobu. ba tey. waaw euh, man nañu wax ne bañ euh, bañ déggee ne Pape nañ ko mandat de dépôt maanaam euh, yoon téye na ko. Mhm. boobu ba léegi ñun organisation des médias du Sénégal jóg nañ pour indil ko sunu soutien et puis jàppale ko pour mu génn. waaw booba léegi it am nañ benn plan d' action boo ko tegoon et puis di ko déroulé semaine bi yëpp ah, am na action yoo xam def nañ ko. muy waaye def ay édito ci biir euh, quotidien yi et puis def ay sitting fa les maisons de la presse te loolu mooy ni tamit booy xool marche bi ñu war a def tey jii muy marche bu rëy rëy xam ne dana am biir Dakar waaye aussi dana ci région yi incha allah mm-hmm. pratiquement autorisation yëpp euh, yi ñu doon ñaan yëpp daanu ko préfet yi jox nañu ko donc ñu ñaan vraiment tous les professionnels des média ak techniciens yi ak ñëpp ñi nga xam ne daal euh, justice moo leen soxal droit de la, à l'information moo leen soxal ñu ñëw rejoindre ci marche bi pour que Pape Alé soit libéré. Mhm. bu weesoo euh, li ñu jàpp Pape Alé lan ngeen nar a euh, euh, ñaawlu leneen wala fësal ci marche tey ci ngoon bi. waaw au-delà nag affaire Pape bi am na leen lu nga xam ne daanu ko presse sénégalaise journaliste yi tamit ñu ngi koy jànkonteel. Mhm. waaw parce que journaliste tamit mën nañu wax ne daanaka chaque fois dañ leen di bunduxatal. di leen attaqué di leen agressé même sax parfois ci terrain bi. Hmm. dañuy gis parfois manifestation boo amee policiers yi dañuy dóor journalistes yi parfois am ñoo xam ne dañu ñu xam wala ñu dem yóbbu leen hôpital ñu am ay gaañu gaañu. Hmm. yooyu yëpp gis nañ ko fi et puis ñun dañ bëgg loolu mu dakk waaye aussi tam am na leneen loo xam ne mi ngi ci. Euh, tey sénégalaise am na ay textes yoo xam ne textes yu bees lañ yoo xam ne ay code de la presse euh, convention collective yooyu yëpp tamit bëgg nañ ko tamit ñu appliqué ko parce que am na fu génération yu bëri yoo xam ne appliqué wu ñu texte yooyu fi ne te bëgg nañ ñoom ñu appliqué ko et puis ñu laaj aussi ndimbal euh, état Sénégal pour mu def une pression nécessaire ci ñi nga xam ne ñoo ko war a appliqué mooy les patrons de presse mu ñu def ko benn euh, beneen affaire bi tamit mooy euh, presse sénégalaise tamit am na ci bëri ñoo xam ne dañ ci jéem a dugg te ñoo xam ne vraiment daanaka bokkuñu ci et puis c'est pas des journalistes ñooñu tamit baax na tamit ñu leen vraiment nga xam ne journaliste a euh, en tout cas euh, liggéey ci nga xam ne amu leen dara amu leen benn professionnalisme ngeen xool leneen loo xam ne ma ngeen ko def te loolu nag daanaka commission nationale de la carte nationale de la presse mu ngi def ay jéego yu bari mm-hmm. pour identifier ñi nga xam ne ay journaliste ak ñi nga xam ne bokkuñ ci. Mm-hmm. alors ci mbiram Pape Alé euh, ñu bëri jàpp nañu ni taskatu xibaar yi xëy na dañoo yéex rawatina kuréel yi leen jiite dañoo yéex lool si xeex bi li ñu si jot a def aussi amagul leen loo xam ne jur na ko lan ngeen di tontu si loolu. waaw ah, yéex man daanaka man du ma ko d' accord parce que bañ ko déggee rek ñu dañ ko téyee rek information bi bi mu amee rek automatiquement ñun dañoo jóg ñun Synpics jóg nañ. Hmm. et puis xool ko d' abord dem tribunal. waaye tamit dem benn avocat boo xam ne da koy taxaw et defaan ko mooy maître Bamba Cissé mu nga xam ne moom la ñu jëloon. Hmm. Oh, après par la suite ñëpp ñëpp organisation yëpp dañoo jog pour diir que vraiment Pape Alé liñ ko euh, téyee du yoon. et puis motif ñu joxe tamit nekkul ay motif yoo xam ne war nañ war nañ tax ñu jàpp ko donc mën naa wax ne jóg bi euh, yeexut teel na sax trop trop trop et puis loolu moo indi tamit tey ñun nit ñu manko mm-hmm. pour vraiment appeler à ce que Pape Alé soit libéré donc vraiment ñun ñëpp dañoo taxaw pour que loolu mu am et puis presse bi yaakaar naa am benn division am ci ñun ñëpp ñu ngi taxaw pour que loolu mën a am. seen doole it foofu la yemoon. waaw yaakaar naa li nga xam ne mooy am moyen de pression ñu amoon ak moyens juridiques yi ñu amoon tamit yëpp dañ utiliser. Hmm. pour que Pape Alé bañ a dem prison mais malheureusement am na loo xam ne su ko état naree nag <laughs> bon yow mënoo ci dara yow en tant que citoyen hmm. donc ñoom daal def nañ li nga xam ne moom moom lañ man ba dugal Pape Alé prison muy loo xam ne dañ koy naxarlu toujours toujours et puis vraiment ñëpp dugg nañ au Sénégal sax ñëpp nañ pour que Pape Alé ñu libéré ko donc loolu yaakaar naa ne dañ am nañ yaakaar daal hmm. mu nekk alors bu weesoo xëy na doxum ñaxtu yi ak euh, mbiram avocat yi lan leneen ngeen di def ñu njoxtu ay waxtaan ak xëy na euh, médiation ci suuf pour que ñu mun ko teggi loxo ndax yéen a ngi ci loolu. waaw xam nga bataay bi ñuy mën daanaka ñetti fan la balaay boo xam ne ñun. organisation ñoo koy def ak syndicat Syntex tout ça ak convention de jeunes de porter appel ak euh, voilà CDEPS correct ñëpp ñoo koy def loo xam ne vraiment mooy li nga xam mooy mooy si terrain bi ñuy jóg di def ay yooyu yëpp am na leneen lu nga xam ne nag avocat yi ñoo koy def ñoom ñooy te wàllu yoon la ñoom ñoo xam niñ ñu koy defee euh, ba papale mën a génn foofu tam waxtaan nañ ci ñoom gis nañ ne ñu ngi def sen liggéey beneen bi nag am na yoo xam ne ay mag lañ mm. mag presse bi yoo xam ne vraiment am nañ expérience ñoom tam ñu leen laaj ñoom ñu jóg en tout cas dox ay jéego yoo xam ne tànku jàmm la pour que Pape Alé tamit euh, ñu man ko libérer parce que dëkk bi tamit bon ñun ñoo ko bokk. Mm. am na loo xam ne fekkee ne mën nañ ci xuloo nañ toog dem waxtaan pour que moom mën ci juboo et nekkaat benn. Mm. est-ce que waxtaan yooyu am na lu mu juragum. Ah, médiation yi war nañu wax na teel na. teel na ndaxte mm. Pape Alé bi ñu ko jàppee léegi bon yàgg na yàggul depuis le six yooyu lañ ko jàppoon. donc euh, mën nañu wax daal en tout cas la machine est en branle ku ci nekk daal yaa ngi dox ay jéego pour que li ñu bëgg. Mm-hmm. mooy le confrère Pape Alé. Mm-hmm. mën a génn euh, nekk yaa ngi koy def am ñoo xam nag moom mën ñu fes ci ci mbir mi. Mm-hmm. xam te ñu ngi ciy def ay euh, loo xam ne ci suuf la vraiment am solo. et ñu ngi koy apprécier bu baax et puis di ñaan tamit képp koo xam ne mën na ci def def ay jéego. moo def ko ci parce que journaliste dañu yaakaar ne place am nekkul prison. place am ci rédaction yi aussi tamit. waaw nit la koo xam ne tam war a nekk ak famille am. Mhm. wante bëri na lu ñu koy tuumaal euh, xëy ni mu fësalee euh, digganteem ak yenn woy politique yi ay relation mënul ñàkk gaa mais ni mu ko fësalee euh, bu fekkente ni opposition la pouvoir day gis na yow opposant nga bu dee opposant nga itam bu dee yow tamit si pouvoir bi nga nga fës lool sa diggante ak ñoom opposition bi mun nañ la jàppee seen wujju est-ce que loolu tamit amul mesure yoo xam ne jàpp nga ni kuréel yu mel ni yéen war na ko si jël pour sax protéger journalistes yi. ak aussi seen wàllu crédibilité euh, ndax am na fooy féetee lool boo waxee rek dañuy jàpp ne way politique bi moo wax te ñu bari jàpp nañu ne aussi loolu moo dal Pape Alé si mbir mi. dëgg la xam nga journaliste moom à chaque fois mu bind loo xam ne euh, neex na la neexul la ak à chaque fois am na foo koy féetal. Mhm. journaliste yëpp tey jii képp ci jël am na fu ñu la féetalee. rawatina nag boo amee ay relations affichées. waaw relation ak moom gis boo gis nañ ko ak Pape Alé waaye ñun li gën am solo. Hmm. du sax loolu parce que fii journaliste bu ci nekk am nga am nga connaissance. bien homme politique. Hmm. wala am ngay amitié yo xam ne vraiment c'est caché wala hmm. lu loo fësal la. mais buñ ko nar a jàpp duñu daanaka duñ ci jóg. mais li am solo mooy journaliste lañ jàpp dugal ko prison rap. te ñu ngi ko jàppee doy na waar ensuite motif yi ñu évoqué motif yu kenn xamul lan la. bien sûr loolu moo tax ñu jóg pour ne mu nekk benn affaire bu nga xam ne danger la pour tout le aussi mm-hmm. bien presse bi société civile même daanaka sénégalais la. leer na ndaxte mm-hmm. mën nañ jàpp saa après daal koy téye ci ay motif xam ne kenn xamul lan la. Mm-hmm. alors euh, ñu wax si euh, mbiram Pape Alé ba tey euh, fan yi ñuy gis benn édito bu bu bu ñëpp bokk ñu si wax la vérité des faits maanaam dëgg bi lan mooy dëgg bi si mbiru Pape Alé audition bi ba si jàpp beeg li ñu koy toppee. waaw dëgg bi mooy lan mooy li ñu njëkkoon wax ne Pape moom la def jël ay information yoo xam ne secret défense la mooy loo xam ne dafay gàllankoor kaaraange réew mi <coughs> ñu loolu da ko jël daana ko joxe ko tas ko ci dëkk bi ñu ne ah, loolu presque amul pratiquement amul sax hmm. amul ndaxte Pape Alé la mu doon wax yëpp fekkoon nañ ñu ci bari Sénégal yi am ko et puis mi ngi nekkoon ci internet bi di circuler muy rapport gendarmerie boobu ñuy wax loolu yëpp gisoon nañ ko pare avant que Pape yooyu mais Pape Alé nag il fallait tam ñu jàpp jàpp ko ndaxte ñoom dem nañ ba ci biir xam na ne kii mu leen déranger ci ci lu bari. donc euh, mhm. voilà ak li muy wax ak kenn xamul donc loolu yëpp moo taxoon ñu ne c'est l'occasion ou jamais jàpp ko benn yoon et puis jëm ko euh, laq jant bi. waaw ñun nag ñu yaakaar ne aussi tamit loolu war warul nekk loo xam ne am te it booy dugg sax euh, gis ne audition bi sax daanaka ko interroger wuñu ko ci loolu ci leen lañ ko doon interroger. loo xam ne laajuñu ko ci li tax ñu jàpp ko. laaj ñu ko ci loolu laa xam nga non laaj ñu ko ci li nga xam ne mooy affaire rapport gendarme leneen lañ ko doon laaj ne ko da nga jël information yoo xam ne information baaxul la nga jël ko dugal ko ci biir euh, en jox ko opinion bi te hmm. <coughs> loolu def ci loo xam ne tey di war nañ ko mën a téye fi mu nekk nii moo tax ñun dañuy laaj vraiment que à que ñu bàyyi ko parce que état bi tam demal ba ci biir affaire bi dossier bi kenn xamul lu muy nuru et puis xamul sax muy taxaw mën nañu wax donc hmm. lu nekk mu doy waar loo xam ne am na fii ci presse bi et puis ñun si ñun la dal ñu war a jóg nag pour jàmmarloo état bi. Hmm. yéen ngir bëgg xëy na sax gën a tàngal yëf yi ci côté état yéen a ngi yaakaar yaatal wala nara yaatal xeex bi ba si bitim réew internationaliser ko bu ngeen fa eggee lan ngeen nara def. mën nañu wax ne xeex bi daal ko nekk na xeex international ba pare. parce que bu ñu gisee am na manifestation yoo xam ne amoon na États-Unis am yoo xam ne amoon na France te it Sénégal ñu ngi manifester waaw bu ñu nee Dakar dañuy dañuy manifester tey jii région yi ñu ngi manifester donc mën nañu wax ne ñëpp tug nañu. ensuite yi nga xam ne ñooy organisation de médias yi gën a am solo ci monde bi muy Reporters sans frontières muy comité pour la protection des journalistes yi nga xam ne dafa am doole lool lool ci ci fa États-Unis ñoom ñëpp dañoo jóg ne lii il faut mu dakk lii war am. Pape Alé dañ ko war a libéré. Hmm. xam nga te ñooñu tamit vraiment am na loo xam ne ñu ngi koy wax te yaakaar nañ ne ñun loolu war na am Sénégal ndaxte bu ñu demee nee nañ en tout cas premier décembre bu ñu libéré Pape Alé dañu jël Sénégal def ko ci liste rouge. Hmm. mooy dëkk yi nga xam ne daanaka libéré euh, journaliste yi dañ leen buntu xatal et puis dañ leen empêche ñu liggéey loolu nag war. te euh, bëgguñ ñeeg foofu te moo tax ñuy laaj état bi euh, lépp li mu mën def pour que Pape Alé soit libéré d'ici là mu def ko pour que Sénégal daal ñu bañ koo xool ci yenn benn benn bët bi. ñuy am yaakaar ne bala ngeen di yegg foofu yëpp Pape dinañ ko bàyyi loolu la ñu koy ñaanal en tout mu dellu si njabootam. mais si fois bàyyiwuñu ko ndax xeex bi dafay wéy aussi longtemps que ñu jàpp Pape Alé Niang. Ah, xam nga xeex bi mën nañu wax ne benn plan d'action lañ commencé jóg. te ku xam dëgg-dëgg lutte syndicale ku xam dëgg-dëgg mobilisation ay journalistes man nañu wax ne ñoom gaawuñu bàyyi benn plan d'action la et puis bu ñu ko demee ba épuisé mooy marche bii ñu def nii tout ça am na yeneen yoo xam ne dinañ ko def incha allah. Mm. te bu boobaa tam danañ ko wax nit ñi pour ko ñëpp appliqué parce que bii nii première euh, kii action bi mm. euh, plan d'action bi gis nañ ñëpp dañoo manko ñëpp dañoo jóg def benn say. Mm. et puis pour appeler à ce que Pape te bëgguñu daal en tout cas daal def ci leneen loo xam ne dana ëpp lii nga xam ne moom la ñuy def moo tax balaa boobu tam ñu ngi a à les autorités ñu man ko bàyyi et dindi teg loxo boo nga xam teg nañ ko teg nañ ko loxo papale mhm. jërëjëf Maguette Ndong amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ñu yow yaay secrétaire général adjoint euh, bu SYNPICS jërëjëf jërëjëf merci beaucoup